onze billah bismillah inna wan yàlla tey nag damaa ñëw ànd ak yéen fii ci Chine spécial tabaski tabaski bu fashion ci fii ci biir chef fashion ak waa ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Chine Guangzhou senegale yi fi nekk nii la ñuy célébrer seen tabaski ak chinois yeeg seen i xarit ñoom ñëpp ngeen gis nit ñaa ngi ci biir ñee ngi lakk yàpp ñii ngi lakk ginaar ñii ngi bégee ñii ngi kaf ñi ngi ree kenn ku ne invité sa mbokk invité sa xarit invité chinois bi ngay liggéeyal ñu fas yéene dugg ci biir wan leen ni Sénégalais yi toogee di paase seen tabaski ak waa Guangzhou fii ci biir fashion jaa ngeen jëf. mbokk yi comme ni ma leen ko waxee ba tey dama leen di toppal ak 221 TV ci spécial tabaski euh, ñi nga xamante ne mooy sénégalais yi féete fii Chine. am na ñoo xamante ne dugg nañ Sénégal am na ñoo xamante ne dañoo toog fii ndax seen liggéey mayu leen ñoom ñu génn pour mën a dem tabaski si seen famille. waaye boo leen xoolee ñu bare bëree bëree bëri bu ñu tabaskee pare ñoom ñëpp dañuy retourné waat dem Sénégal te li ci gën a amati solo mooy solidarité bi fi am sénégalais yëpp dajaloo ñow fii ci jardin chef fashion muy dëkk bu sori ak Guangzhou dëkk bu sori ak Chawbe ñu ñëw nag euh, tey war leen a présenter sénégalais yi ak seen xarit yi nga xam te ne mooy chinois yi ñu fi fekk nan la ñuy liggéeyee. grand maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay baax di la balu ak. mën nga ma baaxee tur bi ak tey euh, initiative bi kan moo ko créer ak lan moo tax ngeen dajaloo fii. maa ngi tudd As Sow nekk Chine fii. depuis 2010 lii initiative bi yëpp suñu grand président Moustapha Dieng moo ko xalaat moom dajaloo rek la xam ne gars yi na ñëpp dajaloo Kaffrine ñëw fu sori ak Sawbelo côté Fossane ñu ñëw si parc bu mel nii ñi ñëpp toog ak suñu mbokk chinois yi ñu doon liggéey doon benn daal xam ne lii daal dañ koy defal chaque année nag la nag chaque année faay at bu jotee rek nii la ko gars yi defee ku nekkee indi saxar moom amul di mooy jënd de réer indi rek teg lépp si xalaatu mag ñi ay ñoom grand xaadim ñoom day ak grand Serigne mbay ñi fi nekkoon ñoom ñëpp xalaat bi daal loolu la ñoom grand lum ñëpp daal di ñaan yàlla ma ñu fekk at yi bëree ni nii waa Sénégal ñëpp nga xam ni lii mooy àdduna lii rek lañ xam ñoog yi ñoo ngi nii bokk ak lépp lu bokk waaw di lekk di naan di béggee waaw yàlla jàmm yàgg kon après dinaa ñëw ci grand Moustapha mais bala maa jàll ci Moustapha damay euh, présenter sama mbokk sénégalais yi ak seen i euh, collaborateurs yi nga xamante ne ñoom la ñuy liggéeyal fii gis nga dañ leen a invité ñii di lekk ginaar ñii di lekk xar ah ñii ñu ngi ci bëy ñu ngi ci lenn gis nga gis nga lii moom batanse la boo leen xoolee xam na ne se moom mo bu ñu lakk moom moom fii nga koy mën a gis sénégalais yi moom miinu ñu def li waaye ñoom dañuy faral di ko def waaye ba tey dañuy toog ak benn sénégalais ma fa yéene am ak moom benn waxtaan bu am solo parce que sa waaye daa mel ginaar ak xar ak bëy lépp la laal ah ba pare xoolal di ko gérer ginaar maa ngi lay nuyu di la ziar. <laughs> lan moo waral sa teewaay teew comme ñëpp rek. gannaaw déet mais boo boo boo wax ak man ba pare bàyyi di di di bàyyi xel ginaar gi nii mais doo wax ak man gannaaw xanaa da ngaa bu xiif bu yàgg. gaay gaay gaay yaatal ko. dina ma jox gaay gaay yaatal ko. xaaral ma dem xaaral ma dem ci keneen xaaral ma dem ci kenen daa mel ni gaay xar yi daa mel ni gaay xoolal xoolal xool kii moom dafa mel ni kii dafa mel ni ngeen la quoi maam mais grand mais grand mais grand tabaski bi daa mel ne na de. waaw ah, neex na trop neex na trop macha allah neex na trop macha allah. seen dundin fii biir Chine na naka la demee. li mooy wane ne ñu dund ci jàmm cohésion moo ta ñu mën a daje fii pour mën a bokk lii quoi. bon damay yàgg di dégg ñu naan Chine ils ne sont pas solidaires sénégalais yi kenn ku ne dangay demal sa bopp lool mais man li ma daan dégg ak li ma gis fii euh, ci ambiance mu mel ne fii yaa connaissance boo xamante ne yàgg na fi lool ba tax tey ngeen dajaloo di def lépp. ñun ñu ñu ñu ngi demalante ñu ngi ñu ngi ji si jàmm lii ma la woon ne tey mooy moom mooy lépp ah. donc euh, ñun moom ñu ngi ñu ngi demalante quoi macha allah occasion day rare nag mais nag. mais heure bu ñu ko mënee def dañ ko def macha allah. sa contentement ak lan ngay wax waa Sénégal ci julli gi. ah xanaa di leen wax it mubarak rek leen ñaanal yàlla yàlla defa leen taw tawféex yàlla defal ñu tawféex ñun ñëpp bañ mën a dellu fekk njaboot yi waaw dañ ko dund ak jàmm vraiment Sénégal jóge fa prospère ba faw waaw laa mën a wax fii rek. ba tey gis ngeen ah li ma leen ko faral di waxee rek gis ngeen eh, eh, ñii ñu ngi placé wu fii gis ngeen ñii ñu ngi toog di zonze di kaf di ree ah ñii ñu ngi toog di soog a ñëw ñii da ngay gis bu gaa yi lakkee pare ñeneen indiwaat ñii di lakk daa mel benn par benn lañ koy def mais grand maa ngi ñëw ci tey damay dikk ci euh, fii nag moom daa mel ne place VIP la mais grand mais grand nga baal ma li lii du batante. ah kay batante la. mais mais Sénégal Sénégal ak Sénégal lekk batante lakk batante. parce que ñu ko xamee ak Sénégal. chinois yi chinois yi ñu ko jàngal nag chinois yi ko jàngal. mën nga ñoo wax ban euh, maanaam ban ban nan lay def ci biir wér-gu-yaramu doomu aadama. dañoo wax ne booy lekk yàpp da ngay koy boole fruit ak lëjum ak ndox. mais grand lii dafa weex neexut a lekk. ah kay neex na de neex na trop. grand naka nga fi bàyyee naka nga fi bàyyee ganaar yi nii. grand bàyyi fi bàyyi fi bàyyi xar bu baax bi nga xamante ne sama yaay ji xool xool mi ngi càpp sànq ba léegi di door ba pare mu xoolal yow yow dinaa ñëw yow yow chef mel ne yàgg nga Chine yow yaa lekkee bant nii maa ngi ñëw mais grand ba tey damay desuwaat si yow lii bëgg naa xam lan lay jariñ ci doomu aadama Euh, dëgg moom laa la wax sànq ne la booy lekk yàpp dañuy wax ne booy lekk yàpp da nga koy boole ak fruit ak lëjum pour que mu bañ la gaañ moo tax ñu ci lekk lekk basante nii comme ça. déedéet aw ma ci benn problème dañ koy lekk nice aw ma ci benn problème. lan ngay ñaan ñëpp nga fa di leen ñaanal suñu borom at mu mi ñu jëm at mi ñu dugg dàq at mi ñu gën di ñaan yàlla suñu borom defal ñu tawféex di ñaan di ñaan yàlla suñ borom ubbi bunte wërsëg yi eh, jàmm ak tawféex daal. grand sant ak ngërëm na la ah. mais mais grand mais grand le grand kii dégg naa turam daa mel ne am na fu ma mburu mi grand taxaweel ni mburu bi mi ngi nii mburu baa ngi nii gis nga nangu woo ko sori non grand kaay kaay grand non non non non non non non grand man sa jëw laay bëgg nga ko fii de waa Sénégal danañ xam mburu mi yow mburu rek ngay dunde yow ibi nga dem taxaw ci wetu mburu mi nii comme ça quoi yow yow bañ la joxe mburu ba tey grand gisuma nga laal yàpp yaa mburu mi yow daa am looy salaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay ziare. Eh, eh, situation bi nga ma fekk baaxul de ndax da ngaa ba damay bañ. jaxata jaxata damay bañ jaxata jaxata yi futti ma. xam nga yàpp kese di ko lekk da nga war a laal tuuti mburu pour mu xaw ko dilier ndax yàpp dafa xaw a diis dañu ñun fi mu toll nii dañoo dañoo dañoo doon mag daal moo tax. looy wax sénégalais ah macha allah daal di sant yàlla bi ñu mayee ñu fekk ko ci jàmm ah, ja yàlla na jaawle ci jàmm. di ñaan yàlla yàlla gën ñoo defal ay xéewal fii ci Chine ah, ba li ñuy ñaan yëpp yàlla defal ñu ko ci jàmm wax dëgg yàlla ñun senegal lii rek lañ am gis nga mbooloo mi toog àndandoo lekk kaf ree loolu rek lañ xam yàlla defal jàmm sénégalais yi defal ko jàmm ñëpp bi jaahi nabil Moustapha kontaan nañ. dinañ ñëwaat ci mbir de. faaw ma wax sénégalais yi ni mu demee noonu ah mais nag ba tey ah ngeen fe fe fe fe nee nañ waa fe fe dégg Kolda fa taxaw ah mooy VIP Kolda ah fi waaw mais fii gars yi nee nañ waa ñi waa Dubaay lañ leen tuddee de ñee lañ tuddee waa Maroc ñee ñu tuddee leen ñee ñoo waa Dubaay ñii waa Chine lañ d'accord léegi nag xoolal léegi nag gis na gis na yaay booy bu jongee ngi nii nag yéen sénégalais xoolal déglu leen ko xoolal du ma ko sax wax dara déglu leen rek ngeen ngeen seetaan xam ngeen bu baax a baax fi ma jëm ak moom yaay booy maa ngi lay nuyu di la ziar maa karam Euh, ñaar yëpp député de la diaspora député du peuple. Mm-hmm. waaw nu ñuy def bañ a lekk yi dañ koy gëj a lekk nag Sénégal. loolu du dara lii du ñu wàññi dara parce que dañuy def sport. dañuy def sport xale xale yi duñ seen morom ñoo leen mën. waaw député de la diaspora xanaa nekk war a servir waa diaspora xool lan moo nekk seeni jafe-jafe surtout en Asie nga xamante ne ñun kenn mënuñu ci réew ma ñun moodu moodu yi nga xam ne ñoo nekk Asie moodu moodu yi nga xamante ne ñoo nekk particulièrement en Chine nga xam ne Chine moom mooy le centre du monde fi la ñëpp di ñëw euh, ñun daal gàcce ngaalaama macha allah kenn du ñun. nous sommes pas ba pare li ci gën a am solo mooy euh, li ma fi fekk ak li ma fi gis wute ak li ñuy wax ci réseaux sociaux ah amul di wedd gis bokk ci yow xoolal fii rek xale jigéen yaa ngi ci ginnaaw wala xale yu góor yi xoolal suñu suñu suñu étudiante yi macha allah ñun ñëpp benn la ñun sénégalais de Chine. tahu ndang may wax rek sekerela eh, rek ay nan ngeen def ba lu jëm ci yéen yow tamit ñun ñooy waa sénégalais de Chine kenn du ñun wax naa la ko ci njëlbeen bi ñun ñooy waa sénégalais de Chine kenn du ñun waaw waa Sénégal maa ngi leen di ñaanal naan leen déwénati tabaski ak jàmm gudd fan wér gi yaram xéewal bu saawaan baawaan ñaanal suñu nouveau régime bi fi nekk lépp li nga xamante ne askan wi ñu ngi koy yaakaar si ñoom Euh, mu ñëw si jàmm ak salaam waaw ñëpp kontaan macha allah fii daal dafa neex. jërëjëf <laughs> continuer ah. maa ngi leen di ziaraat bu baax tey nag ma dikkaat fi xoolal xoolal xoolal borom mburu bi ay saf safal la liñ paa bi nii nag paa bu garaaw a ngi nii. gars yéen kii xàmmee leen ko kii moo xooma ku koy simmi mais na ngeen ko xàmmee ba ay saf safal lay dem di wër. xam naa mburu mi lay waajal mariner yow moom doo def yàpp dégg naa mburu bi ngay marine ay <laughs> ñu dikkaat fi ah ok ni haaw ah you foofu lay yem ak yow de. foofu rek laay mën a yem ak yow <laughs> séeréer yaa ngi fi waa Kolda ngi fi waa mami mami mami sa rose di ko wax sénégalais de man il faut mu leer ah. parce que démb ba léegi mu may xuloog yow il faut nga leeral sénégalais rose bi rose lan la. micro bi maa dina am lu. rose rose jàmm la jàmm rek woote ah. waaw rose jàmm la. wala yow nga engagé di dóor rek yaa ngi yaa ngi sóor bu baax. lekk ma ko séeréer si laa jàkkaarloo moom laay saxal. ki ngay jëw yow léegi la ñuy jëw. non non non leeral jëlal micro non leeral. jëli yeeyoo non non non non dafay leer man fii kenn tooñ kenn man sama micro moom ñëpp la yow yaay séeréer bi ñuy taxaw fii nii. waaw léegi naa yow doo lekk yaa ma yow pëli di ma sosal. ah pëli di ma sosal. man kenn ma sosal. ndax ki lekk kay mooy ki ki dënnam taq man sama dënn taqul da nii dama koy wane nii man sama dënn dama koy wane nii ah, waa dëgg neexul mu ngi nii leen nag dinaa ko yëgal eh, génnal ci li nga ma ne man nii laa mën a toogee génnal ci li nga ne dama ne <laughs> dama ne dama sama xarit daa feebar dama sama xarit lu ci dama sama xarit daa ñu aaye woon ko nag ndawal li ma defal la ko ndawal lu nooy nekk mu ne reesaan nag damay wax dëgg ma mari ne ko nag déedéet dëgg la ele mala gisoo ko musóoram gi ni mu ko fiijee dafa feebar ele mala da ngeen di xool rek ci ni mu ko ni mu fiijee bopp bi ngeen xam ne daf feebar xool wax sax mënu ko mi ngi est-ce que corona wul sax ma lool jaaxal na ma waaw corona na ah, moom jaaxal na ma daal. fii kenn takku fi masque. waaw waaw takk masque moom amul corona mais séeréer si séeréer si moom dara jomb ko. waaw kay. léegi nag ci tabaski bi ak sénégalais yi njaboot geeg famille yeeg ñëpp tey mu waroon la fekk Sénégal nga toog fii ànd koog sénégalais yu yi. macha allah xanaa rek nag euh, nee nañ nag boo ko defee daaw ba fekkee ko ren macha allah da ngay sant yàlla waaye na ñuy ñaan fekkee ko déwén tamit en tout cas euh, nii rek lañ ko tàmm di defee à chaque fois dañuy regrouper wu. chinois yi nekk fi ñun ñu nekk fi suñu am na suñu càmm ñu am ay jabaru chinoise ñun ñëpp dañuy ñëw bu ko defee ñu bokk ñun ñëpp rek def suñu taari daal def suñu tabaski bu neex macha allah waaye nag may ñaanal ñëpp di di balu àq ñëpp di baal àq ñëpp tamit di ñaan yàlla nañ ko fekkee yàlla nañ ko yàlla yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba ñu fekkee ko ay déwéni déwéni déwén incha allah waaw ren nag bëggoon nañoo dem wax dëgg fa yàlla waaye nag xam nga ñun moom Euh, parfois jot bi daf ñuy xaw a euh, tànc ba nga xamante ni tabaski tabaski du waat Sénégal ay bëri fii bu ñu paree mënta ñàkk mënta ñàkk mënta mënta ñàkk dañuy dem tabaski ji waat na ma waa dakaar xaar rek <laughs> ñoo ngi ñëw ay ca mami kontaan nañ ci yow ah. ñu ngi desuwaat ñu dem xool ji ki nga xamante ne mooy Moustapha l'initiateur donc euh, li ma leen faral di wax saa su nekk rek 221 TV moom tout temps da leen di wan loo xamante ni Euh, euh, dafay doon lu wóor dafay doon lu leer ba pare ànd bi lépp mu nekk ànd bu sincère gis ngeen fii lii solidarité la ba tey li may wax ci ànd bu sincère yeneen gaa yaa ngi nii di ñëw gis ngeen ñii dafa mel ni ay musique lañ bëgg a laal de fii dafa mel ni ay ay ay ay Sidi Diop ay ay ay Wally Seck moo fi nar a am appareil ci kanama ah. mais ana sëñ Moustapha ana sëñ Moustapha Moustapha lay wër waaw waaw Cheikh Moustapha ngi nii nag voilà l'initiateur est là donc ñu am moom benn jotaay bu ndaw sëñ Moustapha maa ngi lay nuyu di la waaw gis nga ma nga ci ma nga ci ma nga ci woote yi nag ma nga ci woote ma dikkaat tuuti ci ci gan ñi di soog a ñëw ah waaw ne dafa mel ni kii kii benn star la bu ñëw indaale ay ay ay baafal ak loolu xanaa mooy musicien wu kër gi eh non grand non taawal non non grand da nga leeral dama la gis nga ñëw yaa yor sa musique ak fii dafa nar a am bu mbaay waaw lii xam nga rek comme ni ñu koy faral defee chaque année tabaski ak Korité da nga fi faral di ñëw donc euh, ah boog ñun bu ñu négocier ñun suñ suñu tabaski nii lay mel donc kon da ngay mel ne yéen ngi Sénégal waaw bi ñu mel comme ñu ngi Sénégal par boo xoolee fii ay ay Sénégalais fi nekk donc euh, donc voilà quoi xam nga rek retrouvaille bi lii daf ñu manqué en fait. yéen depuis quand yéen ngi am complicité bi ay yéen seen biir quoi parce que mi mel ne fii gars yi xamante nañ bu yàgg te Chine bopp sa bopp laa doon dégg gars yi kenn ku na toog sa mais je que fii famille quoi. waaw waaw wax dëgg yàlla fii moom famille la quoi ku si moom moo dafa ñëw yaatal ñëpp moom wax dëgg yàlla moom euh, donc comme comme ku si moom dafa ñëw yaatal ñëpp moom wax dëgg yàlla moom borom baax donc moom mooy boole gars yi fii nii donc gars yëpp di ñëw ñuy toog di lekk boo xoolee am na jigéen ñi côté bee am na góor yaa nii donc bien vrai que ni li nga wax dëgg la euh, Chine fu nekk bopp sa bopp la mais tamit ñëpp ay Sénégalais leen en fait parce que boo xoolee ñun buñ fi man boog man yàggu ma fi mais wax dëgg yàlla comme def naa fa ay vingt ans mais grand yëpp non yàggu ma fi quoi def ma euh, boo xoolee ak grand yi fii comme def naa ñëpp ñu doon wàcc seen bopp donc ñun ñëpp ñooy boo xoolee gis nga ñu fi mag rek ñoo fi nekk boo xoolee waaw mais pour pour pour bopp sa bopp bi si cadre liggéey bi la mais bu bu rombee cadre liggéey bi voilà donc cadre liggéey bi rek moo tax ñuy wax voilà. ñooy bokk football ñooy bokk def lépp amul mag kii sama grand la de lu ma neex laa koy wax keneen ak keneen bon ci cadre liggéey bi la nekk bopp sa bopp mais buru weesoo loolu lépp comme nii nga ñu gisee nii lañ koy defee. gën nañ ëpp nañ ñii nag mais ñu si bëri dañoo dem julli ji Sénégal tabaski ji mais bu la fi màggal fekkee wala yu mel ni gàmm ngay xam ne fii sénégalais yi fi nekk dañu bool 221 TV dina ànd ak yéen topp leen bu wér wér mu mel ni euh, gaay yi ñu ngi am seede bu rafet ci yow ci li nga initié mu doon loo xamante ni acte noble la ak solidaire la parce que bu la neexoon nga yemale ko sa kër wala nga yemale ko fi nga ne wala si say connaissance mais yàgg gi nga fi yàgg sénégalais yi ñëw nga boot leen ba pare am xalaat bu rafet ñu ànd kook yow ñu fekk ambiance bi mu mel ni fii ñeen ñëpp yéen bokk ndey ak baay xamante ne. sëñ bi ñu ngi lay ziar di ziar sa site bi waa 221 TV waaw di rafetlu vraiment seen ñëw bi fii bon comme ni ko gaa yëpp waxee ñun euh, au en vraiment depuis je peux dire plus de quinze ans fête bu am Sénégal parce que fii dëkkuwaay bi nu mu demee ku nekk euh, ay ñaari nit dëkk wala benn donc bu événement ñëwee on fait tout pour regrouper nit ñëpp mu mel ne rek ñu ngi Sénégal di ko jéem a féete comme au Sénégal loolu mooy euh, objectif bi yëpp. nekkin bi dundin bi. ak mhm. ci mën a lan lii moom ça montre juste l'unité unité des sénégalais quel que soit li ñuy wax nag ay benn bopp sa bopp wala dara sénégalais yi ñëpp ñu fi nekk dañu nekk seen business effectivement ku nekk ak sa business mais bala ngay xam ne Sénégal moo solidaire même dog-dog am fi wala leneen sénégalais yëppay mobiliser wu quel problème yi ngay dégg et donc bu amee ay heureux événement comme fête nationale màggal gàmmu on est on fait tout pour regrouper tout le monde feet ko feete ko ensemble. tabaski 2024. ak waa Chine ak loolu. lan nga wax tëjee sa kàddu ak lan ñaanal sénégalais yi fi nekk di ñaanal ñëpp jàmm di baalu ñëpp ak di leen baal ak te di ñaan yàlla ànd bi gën a dëgër surtout bitim réew dafa metti nit ñi il faut ñuy approché wu surtout di déggante. et puis occasion yu mel nii ñu def tout ba jéem a wu loolu moom ah, yàlla dina ci wàccee ay xéewal yu bëri di gërëm ñëpp di sant waa Sénégal di leen nuyu eh, di leen baalu di leen baal àq et di leen souhaiter une très bonne fête de Tabaski jaajëf merci beaucoup ay co mi ngi noonu comme ni ma ko faral di waxee rek noonu laa wax bala maa tëj sama émission di spécial Tabaski fii à Chine ñu ngi fii nag ci fashion gis ngeen gars yi ba tey pare guñ ci lakk yàpp yi de gars ñu ngi dindiwaat euh, xar yi xam naa dañoo rey seeni i xar daggate ko fii moom amul dem seeraas moom si moom dangay ngay dem defar sa lépp ñëw fi liggéey mais nag dafa mel ne waa seeraas a ngi fi de que li ma gis nii daa ne ñii ñoo yor wàllu dagg beeg lakk beeg seddale bi ak loolu waaye yemuñu foofu ah yemuñu foofu chinois yi nag moom gis nga dañuy xool dañuy lekk de dañuy lekk bu baax a baax a baax ngeen gis ni lépp rek ci solidarité la ah banaana yi pomme yi orange yi yaa ngi gis boisson yi gis ngeen gars yi ñoom ñëpp ñoom ñëpp di bégee xoolal sama nijaay moom ah, li muy lakk neex na de kii de mi ngi mel ni ma nga Sénégal moom ah mais noonu la daal li mooy àddina li mooy solidarité gis nañ fi famille bi yéen sénégalais yi nag ah man ma leen ñaanal euh, man en tant que Kara 221 ci biir 221 TV ànd koog label bi nga xamante ni moo coiffé njaboot gi moo coiffé kër gi. ngeen gis muraille verte bi ci jardin bi gars fi la ñuy féexloo ku bëgg a woote téléphone woote téléphone ah, taxaw entre ami waxtaan kafre man daal lépp laa leen di wan tey nag ma ànd kook yéen ci àndin bu rafet waaw ah, gis ngeen rivière bi en bras de mer bi usines yi ci biir ñëpp rek lu rafet lu baax Chine nga ko fiy gis donc sénégalais yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax li moo doonoon spécial spécial tabaski 2024 fii ci fashion ak waa Ganzu sénégalais yëpp nag kontaan nañu yéen waa Sénégal na ngeen soutenir seen i doom na ngeen di ñaanal seen doom ci lépp loo xamante ni dafa doon lu baax parce que ñii dañoo bàyyi seen lépp ñëw di daan seen doole ñii dañoo bàyyi seen jaboot bàyyi seen i jabar bàyyi seen kër bàyyi yenn bien foofu sax ñëw fii di daan soone di daan seen doole pour sénégalais kon na président de la république gestu na leen leen seet si nañ leen leen jàppale nañu solidaire ak ñoom nañu xool li ñu am ci ay problème ñu jàppale leen nañu xool lu ñu leen war a jàppale ñu fon ñu jàppale leen ci ay papier ba du ñu am benn problème kon nag maa ngi jaajëfal mbokk sénégalais yi di jaajëfal képp koo xamante ne yaa ngi topp di ñu suivre ci 221 TV rawatina label bi nga xamante ne mooy kër gi ànd koog seen présentateur réalisateur Kara 221 ci kàddu gi ñu ngi leen di nuyu di leen jaar mbokku téléspectateurs yi euh, comme tey ni ngeen ko gisee woon ci spécial tabaski fi nga xamante ne ci fashion la ànd kook sénégalais yi nga xamante ne ñoo dëkk Chine nekk fële ci Guangzhou ngeen gis ni on a fêté on a rigolé on a en même temps aussi di jëfal képp koo xamante ne moo doon suivre 221 mais nag ci biir loolu dama fi gis tey euh, famille boo xamante ni famille bu exceptionnelle la. famille boo xamante ni ñoom ñëpp dañoo maase ànd ànd bu rafet ñëw feete seen tabaski ak ñëpp ñi nga xamante ni tey jii nii mooy sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk ci Guangzhou tey nag euh, damay jël kàddu gi jox ko kenn ci nga xamante ni diva la yaay la te et puis euh, ñëpp safoo nañ ko mu mel ni tey euh, lépp loo xamante ni sénégalais yi bëggoon nañ ko tey muy tabaski Chine yaay booy maa ngi lay nuyu di la ziar lan ngay wax ci turu ñi nga xamante ni ñoo fi daje ñëpp. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp. salaamaaleykum maa ngi nuyu sama mbokk yi ma fi taxawal yëpp di sénégalais de Chine bàyyiwuma kenn di wax ne di leen baalu àq naan euh, nañ fekkee déwén. Oh waa di baalu ñëpp àq euh, naan yàlla nañ ko fekkee ay déwén yu bare bare bare vraiment kontaan nañ waaye balaa may euh, gën a sori damay jox kàddu gi. président moom mooy waaw ñu ngi gërëm ñëpp di baalu ñëpp àq di leen baal àq di di gërëm ñëpp di leen wax ne tabaski bi ça s'est très bien passé lii yëpp euh, lu ko waral mooy euh, disponibilité nit ñëpp bëgg a nekk benn donc ñëpp dajaloo comme niñ koy defee chaque année fête événement yi am Sénégal ñu koy fête Chine. comme niñ koy feetee Sénégal pour bañ a weet ñun ñu dañuy booloo chaque fois chaque année ci événement yëpp yu am Chine muy tabaski muy korité muy euh, màggal gàmmu yëpp di jaajëfal gaa yëpp quoi ci seen disponibilité. Sëñ dafa am loo ci yokk. Ah, waaw jërëjëf ginnaaw bi soxna Mati député député eh, Asia waxee ba pare ñu ngi sant sëñ Moustapha suñu président association di sant sénégalais yi ñëw yëpp ndax nun Sénégal lii rek lañ xam ah, àndandoo nekk benn feete nañ tabaski bi fii ci Chine feet gu neex àndandoo ñun ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw jàpp ci di ñaan yàlla rek yàlla defal ñu ay xéewal ñu yàgg ko feete yàlla ubbil ñu fi ay xéewal bañ àndandoo suñuy famille yëpp tamit di ko defee Sénégal gën dëkk bi jaahi nabil Moustapha mais macha allah daal lépp rafet na lépp rafet na sant nañ bu baax. jërëjëf 221 euh, TV yow tamit ñu ngi lay sant di la ñaanal nga am succès euh, gën a euh, kii ci sa liggéey di ñaan sa liggéey gën a avancé nu àndandoo rek bokk liggéey bi incha allah jërëjëf 221 TV. jërëjëf ñoo ko déggandoo ngeen gis euh, ambiance bi daw ci sénégalais yi gis ngeen nii di photo woo en ami xarito ba ci ñëpp ñi nga xamante ni tey jii nii ay gan lañ yoo xamante ne invité nañ mais nag gars yi man dafa am lu ma fi gis ah dafa mel ni ngéyeen yi ngéyeen yi ngéyeen yi bàyyi ñu fi dara ngéyeen yeeg jaween ni moom xoolal lekk ni yàpp bi naan naan bi gis nga may ga bi lañ fi bàyyi gis nga xoolal gis nga gis nga boucher bi mu mel ni daal lii mooy mbégte mi mbégtem tabaski ah Aïd bi kontaan nañu gars yi lekk nañ lekk lii nag ay bonus la nag gis ngeen gars yi bàyyi ñu fi dara dañoo door a door a door eh, xoolal lii xoolal ma lii rek xoolal ma lii kii xam naa ñaay fay moom moo ko war a jël yóbbaale ko këram bu jàppale cee soxna si daal. am na nag Sénégal yoo xamante ne nee nañ pare nañ ci dañuy jaaree noonu dem tabaski ji Sénégal tabaski tabaski waat grand tabaski tabaski waat tabaski tabaski waat am na ñoo xamante ne neen dañuy daw. ah waaw kay jëf jaajëf jaajëf gis nga ba tey seen reportage 221 TV moo leen ko amal mais grand grand grand dafa benn question bu may laaj waay tabaski tabaskiwaat bi nag am na ñoom nee nañ dañuy dugg Sénégal pour tabaskiwaat mais loolu loolu loolu fu ko gars yi teg. mais yaa gis de fii xéwal yi gis nga lu mu deseet nii xoolal li yëpp fi bu nekk nii gars yi dañuy partagé ku nekk yóbbu sa kër defaat sa deuxième tabaski di xaar nag bu Sénégal encore. <laughs> mami mami da tabaskiwaat. non ma naka jekk damay tabaskiwaat. mami dégg naa da ngay tabaski tabaskiwaat tabaskiwaat. waaw waaw ñetti yoon lay doon damay tabaski fii tabaskiwaat tabaski jiwaat Sénégal. <laughs> kooku mooy soxna mami moom mooy jigéenu gaa yi nga xamante ne ñoo fi nekk yëpp fii ci euh, Ganzu nga gis ni gaa yaa ngi nii di paajal di dem seen i xarit ñëpp ànd ak ñoom ak de 221 TV lii nag moom mooy mbégte li mooy àjjana jullit yi nii lañ koy defee yaatal solidarité ci la paix et la sérénité. lépp loo gis ci àddina lu nekk rek am na lu ko sabab yàlla moo ñu bind utale ñu mais solidarité dafa baax partager ñam dafa baax bien vrai que ñu bëri duñ ci ay jullit mais tey gis ngeen ni partager nañ ko ñoom ak ñoom ñi nga xamante ne ñooy doomi dëkk bi bu leen doomi dëkk bi yaatalul woon nag amaana ñoom du duñu nangoo partager ak ñoom gis ngeen kenn ku nekk waajal na boppam fii laa leen indiloon seen télévision bi di 221 TV ci biir fashion Kara mi nga xamante ne mooy weccandoo ko ak yéen di xalam xalaatam ci biir li nga xamante ni mooy liggéey bu rafet bi muy def ànd kook yéen ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a